sëriñ Bass mu sëriñ Abdul Xaadir nee na mi ngi nuyu mbokki jullit yëpp. ak mbokki taalibe murit yëpp. di ànd ak mbégte bu baax a baax nag. ci suñu kilifa bu baax gii nga xam ne. ci suñu kilifa dafa xëy amul yëg-yëg rek. mbett ma mbett mii. mbett nag mbett mii. mooy ñëw fi ñëw mooy ñëw fi. Eh, muy mbégte mu rëy ci ñun. mu rëy ci ñun. ndax bu ñu yëgoon ne soxla na ma sax. ndax day wallaay bu ñu yëgoon ne soxla soxla nañu sax. du ma xaar mu duñu woo. du ma xaar mu duñu woo. kon bu ma ko yëgee rek maay ñëwul sama rawat na bu ma ko yëgee rek mu yónnee woo ma. rawatina mu yónnee woo ma. rawatina mu dikkal boppam. nag mu dikkal boppam. kon loolu kon nag loolu ak woyafam rek moo toll foofu. ndax jotu ndax jotam mayu ko ay atamit mayu ko te yoon wii képp day képp kuy sa kilifa rek. moom dara warul sa kilifa ci yow. dara warul sa kilifa ci yow. te yow lépp la war ci moom. kat lépp la war ci sa kilifa. te Cheikh Mouhamadou Mountakha fi nekkal Serigne fi nekkal Serigne Touba. ndaka jekk day wax ne. ndaka jekk day wax ne. sama kilifa. sama kilifa. dama koy bàyyi ak sama bopp. dama koy bàyyi ak sama bopp. bàyyi ko boppam bàyyi ko boppam. kon nag. kon nag. Serigne bi tey jii. Serigne bi tey jii. li ko fi yëkkati. li ko fi yëg-yëg bu rëy la. ndax fekk na. ndax fekk na. Eh, ndigal li Serigne bi joxe ci dëkk bi. ndigal li Serigne Mountakha joxe ci dëkk bi. teg ko ci loxol Serigne Amdi mu Serigne Modou Mbenda. teg ko ci loxo Serigne Amdi mu Serigne Modou Mbenda. mi fi jëmmi Cheikh Ibra tey. mi fi jëmmi Cheikh Ibra tey. ngir mu setal dëkk bi. ngir mu setal dëkk bi. ba dëkk bi gën a méngoo dëkku Serigne Touba. ba dëkk bi nag gën a méngoo dëkku Cheikh Ahmadou Bamba. muy loo xam ne lépp ak defar rek la. muy loo xam ne lépp ak defar rek la. sëriñ bii nag. Serigne bii nag. ci xalaatam. ci xalaatam. fekk na démb. fekk na démb. am na lu ma ci sëriñ bi yónnee woon ci Abdou Lahad am na lu ma ci sëriñ bi yónnee woon ci ñi nga xam ne yëkkati nañ leen. ci ñi nga xam ne yëkkati nañ leen. ci xalaat yu mu ci am. ci ay xalaat yu ci am. yaar yaar. benn bi mooy am na lu ñu war ci marché Ocass. benn bi am na lu ñu war a tabax ci marché Ocass bi. foo xam ne. foo xam ne. barab la boo xam ne marché bi ko moom. barab la boo xam ne marché bi moo ko moom. kon alali sëñ bi. kon alali sëñ bi. ñi nga xam ne ñoo fi nekkoon nag. ñi nga xam ne ñoo fi nekkoon nag. ñoo ci jiitu. ñoo ci jiitu. pour ñu mën faa dugg. pour ñu mën faa dugg. ba ca desit am na marché bu bees. am na marché bu bees. boo xam ne nguur gi mu ngi koy xalaat. boo xam ne nguur gi mi ngi koy xalaat. te mën naa am yàgg. te mën naa am nag du yàgg. ngir ñu tabax ko ci dëkk bi. ngir ñu tabax ko ci dëkk bi. bu ko defee ñoom ñoo ciy jiitu. bu ca defee ñoom ñoo ciy jiitu. loolu démb la ma ko sëriñ bi waxoon. loolu démb la ma ko sëriñ bi waxoon. sëriñ Abdul Karim nag. sëriñ Abdul Karim nag. ci yërmaane ji nga xam ne. ci yërmaane ji nga xam ne. mi ngi ko donnee ci way juróom wu tedd wi. mi ngi ko donnee ci way juróom wu tedd wi. Cheikh Mouhamadul Fadil. di ko yëkkati tey. di ko yëkkati tey. mooy xamle. mooy xamle. ne marché yi ci dëkk bi. ne marché yi ci dëkk bi. bu sañoon nit ñi dem fa. bu sañoon nit ñi dem waaye mu a sëñ koo wax nag. waaye mun a sëñ koo wax nag. da koy da koy wax sëriñ bi rek. da koy wax sëriñ bi rek. bu noppee déglu ko ci nu bu noppee déglu sëriñ bi nu mu ci doxee baax na. sëriñ bi rek ko. sëriñ bi rek moo ko digal nag. war cee kon mu war cee yëkkati kàddu. soññ ci taalibe yëpp soññ ci taalibe yëpp. Eh, na mu ko war a waxee dana ko leeral. na mu ko war a waxee dina ko leerale noonu. la ci des rek mooy. mooy. yónni na ma ci suñu am di démb. yónni woon na ma ci suñu am di moo ne benn démb. ba àgg naa ko. ba àgg naa ko. bu weeru koor gi jeexee. bu weeru koor gi jeexee. Eh, corniche bi. corniche bi. ñaari wet yëpp dañu fi jëmbataal ay garab. ñaari wet yi. loolu nag bu boobaa. loolu nag bu boobaa. ci loxo si am di la ko teg. ci loxo sëñ am di la ko tegaat. Baye Fall war koo def. Baye Fall war koo def. waaye ñëpp lañ ci war a jàppale. waaye ñëpp nag ñoo leen ci war a jàppale. ñi ci sëñ bi jox ndigal nag ñi ci seen bi jox ndigal nag. ñi ci jiitu ñi ci jiitu. mooy waa commune bi commune bi la leen ci waaye mooy waa commune bi li leen ci war. ñu def ko ci ñu def ko ci. ànd koog ñoom ànd ñoom. la ca topp la ca topp. mooy waa Touba ci kanam. mooy waa Touba ci kanam. nga xam ne ñëpp xam nañ seen taxawaay ci dëkk bi. nga xam ne ñëpp xam nañ seen taxawaay ci dëkk bi. ba ci bokki taalibe bi yëpp. ba ci bokki taalibe bi yëpp rek. ak kuréel gi nga xam ne. ak kuréel gi nga xam ne. ñoo sosoo woon loolu. ñoo sosoo woon loolu. te suñu kilifa sëriñ Moustapha suñu Abdul Xaadir. te suñu kilifa sëriñ Moustapha mu sëriñ Abdul Xaadir. nekk ca bopp nekk ca bopp. di seen jëwriñ di seen jëwriñ. ak suñu doom sëriñ Murtada. ak suñu doom sëriñ Murtada. kon ñu bàyyee kaddu gi. kon ñu bàyyee kaddu gi. ak sëriñ bi. ak sëriñ bi. ci kaddu yi mu ci war a wax. ci kaddu yi mu ci war a wax. mu àgg ci taalib yëpp. sëriñ bi nee na jërëjëf Mbacke bëgg na ci kàddu yi bu baax. dama ñëwoon rek doon ci waxtaan ak yow. nee daa ñëwoon rek doon ci waxtaan ak yow. waaye. waaye. nga far. nga far. daal di jot sëriñ bi. daal di jot sëriñ bi. ndigal li ma la doon ñaan. ndigal li ma la doon ñaan. sëriñ bi far ko maye. far sëriñ bi far ko maye. loolu nag loolu nag sa taxawaay sa taxawaay daf ko matale daf koo matale ndax mënoon naa ñëw wax la ko ndax mënoon naa ñëw wax la ko nga ne ma waaw danaa ci waxtaan ak sëriñ waaw danaa ci waxtaan ak sëriñ bi waaye dama la ko wax waaye dama la ko wax nga ne ma toogal rek nga ne ma wax ak sëriñ bi ma wax ak sëriñ loolu daal doon loo xam jeex lay doon ci ndigal nee na loolu daal doon luy jeex ci ndigal bi nga wooyee sëriñ bi. bi nga wooyee sëriñ bi. mu joxe ndigal li mu joxe ndigal li. ndigal nag mooy. ndigal nag mooy. dëkk bi dëkk bi. lu mat fanweeri marché ngi fi. lu mat fanweeri marché mi ngi fi. marché yi. marché yi dañ leen tabax tabax yu baax. dañ leen tabax tabax yu baax. sëñ bi nag. sëñ bi nag. wax ne. wax ne. ñi nga xam ne jël nañ leen ci ay barab. marché yi nañ dem ci marché yi. jël fa ay barab. jël fa ay barab. bu ko defee ko defee marché yi. yu ci barab yi sax. yu jëlee ci barab yi sax. mënuñoo feesal marché yi fi nekk. mënuñoo feesal marché yi ne bi. ak ñi ci mbedd ñëpp. ak ñi ci mbedd ñëpp. di jaay di jaay. bu ñu àndee dem dem ci yi. bu ñu àndee dem ci marché yi. du tax yi fees. du tax marché yi fees. te loolu. te loolu. ñoom jaay. ñoom ñiy jaay. loolu dana leen dimbale. loolu dana leen dimbale. ndax bu ñu nekkee ci benn marché. ndax bu ñu nekkee ci benn marché. ku fa ñëw ku fa ñëw. mën a gis li ñuy jaay. mën a gis li ñuy jaay. waaye ñi nekk ci mbedd yi. waaye ñi nekk ci mbedd yi. li ñuy jaay kenn du ko gis. li ñuy jaay kenn du ko gis. waaye bu ñu fa demee. waaye bu ñu fa demee. ku fa ñëw ku fa ñëw. dana gis lépp. dana gis lépp. te itam. te itam. dana baax ci ña leen wër. dana baax ci ña leen wër. marché bu ci nekk. marché bu ci nekk. ña leen wër. ña leen wër. marché marché boobee dana baax ci ñoom. marché boobee ñu dem dana baax ci ñoom. ndax dana wàññi seen. dox bu sori. dana wàññi seen dox bu sori. dana yombal. dana yombal. li ñu bëgg jàpp jàpp jege leen. li ñu bëgg jege leen. bu ko defee nag kon. bu ko defee nag kon. ndigalul sëñ bi. ndigalul sëriñ bi. ndimbal la. ndimbal la. ku ko dégg rek. ku ko dégg rek. nga ko jëfee. na nga ko jëfee. waxuma saayir si. waxuma saayir si. waaye ak ñaanam. waaye ak ñaanam. ak kàddoom rek. ak kàddoom rek. day baaxal mbir. day baaxal mbir. kon nag. yéen ñëpp yéen ñëpp. ñiy jaay ñiy jaay. na dem. nangeen dem. ci marché yi ci marché yi. yóbbu fa seen i marchandise. yóbbu fa seen i marchandise. dana baax ci yéen. dana baax ci yéen. jërëjëf jërëjëf.